mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziare mbokk yi ñu ngi ziare bu baax Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal sunu borom subhaanahu wa taala mu yàggal ko fi lool ba yéene ji mu am ci liggéeyal am ju baax ja seexul xadim mu defe ko na ma ko soobee te maandu ko ak mbooleem njaboot gi yépp di nuyu bu baax a baax sëriñ Ahmadul Muxtaar mi nga xam ne mooy kilifa daarul xuddoos ak mbooleem njabootuk daarul xuddoos gi yépp bàyyiwuñu kenn mbokk yi bu ngeen gisee jataay bu am solo bii ñoo ngi ci waajtaayu bis bu am solo muy bisu màggalu asrina muharram di bis bi nga xam ne ci la Seexul Xadim ñibbisee woon ci dëkkam bu tedd bi ci taxawaayu jàmbaar ja Cheikh Mouhamadul Moustapha fédération des groupement religieux et culturels des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba am ci taxawaay bu ama am solo ci njiital président bi Serigne Moustapha Mbacké di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te ànd ak wér ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo jiite secrétariat yëpp sëriñ basiiru Dieng ci adulte yi soxna Ndey Fatma Mbacke ci wilaya femme sëriñ Cheikh Mbacke Mouhamed ci wilaya jeune. mbokk yi tey ñu fas yéene amal jataay bu am solo ngir woote jëmale ci bis bu am solo boobu jataay bi incha allahu rabbi danañ ko tënk rek ci ñeenti tomb tomb bu njëkk bi dañuy jox sëriñ Cheikh Fall bu éducation culture mu fàttali ñu. taxawaay bi nga xam ne moom la ñu war a am ci bis bi ak importance bi nga xam ne bis bi am na ko ci ñun waaye naka lañ ci war a dundale ngir ñu tase ci ak la ci borom dige woon. ñaareelu tomb bi danañ jox sëriñ Ibrahima Kane mu woo mbokk yi nga xam ne ñoo aju ci fédération bi ci section yi ci jaspora bi ak mbooleem fu ab wilaya nekk. ñetteelu tomb bi kàddu wilaya femme lay doon. ñu yëkkati ko jëmale ko ci soxna yi. ñeenteelu tomb bi nga xam ne moo war a jataay bi kàddu président bi lay doon sëriñ Ousmane Mbacke Gaynde Fatma moo ko yëkkati aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina muhammadil wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi sabiri dan wa tamkin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñuy seetaan noo leen di nuyu noo leen di ziare noo leen di ndokkeel di jiital ci nuyu beeg ziare bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaan mu fi lool ci wér waaye noonu lañ ko ñaanalee Cheikh Ahmadul Mokhtar mi nga xam ci pakkam lañ nekk waaye noonu lañ koy ñaanalee sëñ Mbakke sëñ Cheikh Mbakke Madina mi jëw ñi daar Xuduus waaye sëñ Abdourahmane Mbakke Gaynde Fatma mi nga xam ni mooy xalifab sëriñ Cheikh waaye wàcce ko ba ci sëñ Moustapha mi nga xam ni moo njiitul ittihaad atbaa'il xadim li taawuni wa ko bi diinil xawim jataay bii nag bu ñu ko gisee rek seenum xel dana dem ci bis bu màgg bis boo xamante ni bii bis bu ko gën a rëy ci yoonu murit wala ci lislaam bariwut bis boobu mooy ban bis mooy bi nga xam ni ci la ñibbisi woon ci pàkkam bu tedd bii pàkk bii nag bokk ci pàkk yi yi mu gën a bëgg wala nga mooy pàkk bi ko gënal mu yàgg ñaan boromam lool it nag ak ñëwum fi bis bii nag mooy bis bi nga xam ne ci la doon ñaane di wax suñu borom naan ko. na nga def bis bi gën ci samay bis doon bis bi bi may dajeeg yow waaye ñaanat ko bis boobu doon bisub nooflaay wala jaalil mawtara xaatin wa mafraxatan waaye ca la waxee naan yaa rabbi ijaal xayra ayaami yow ma alxaak loolu nag mu roy ko ci yonte bi sallallahu alayhi wa bis boobu nag bi mu amee daa digaloon taaw bu baax ba njigal yu am solo bokk na ci mu indi ko ci barab bii moom it ci boppam mu waxoon ci bis bii nii. saa bu bi dikkee ñaan na mboolem ñi nga xam ne mooy malaakatul muxarraboona yi tàmbale Seydina Jibril Asrafil Asrail ak ñam àndal ak mboolem malaaka yi nga xam ni ay muxarraboon lañ ñu ànd ak moom ci bis bi waaye bu ñu ànd ak ñoom ci bis bi nag saa bu bis bi dellu nañ ko defe woon noonu lañ ko defaate mu joxoon ndigal nag taawam boobu ci andi ko ci waaye nag di ko woote ak màggal kon bis moom la tax ñu daje fii ngir di ko fàttali mbooloo moom mu mel ni nag bis bi bokk na ca la nga xam ne moo ci ëpp solo ca noonu la ko Cheikh Amadou Moustapha al Karim daan defee mooy jàng alxuraanul waaye jàng xasida waaye def ay askar salaatu ala waaye def ay bernde loolee nag kon mbooloo mi moom cosaan loolee ko Cheikh Amadou Moustapha daan defee noonu la koy defee waaye nag di ci soñu ñëpp mu mel ne alxuraan ji ni ko Cheikh Amadou Moustapha daan defee muy bi bis bi dëgmalee ba bu ñu egsee ci bis bi ñu. du fii ci barab bi yendu fa jàng alxuraan ay kilifa jiite ko yendu fa jàng xasaayit ak ay askar def ay bernde noonee kon lañ koy soññewaat waaye rawatina xasida yi nga xam nag wala xasida yi nga xam ni mooy xasida cosaan yi nga xam ne moom la Cheikh Amadou Moustapha daan jàng ak di ko jàngalu muy jësbul xulub ak ma mawaahibu naafi' ak am daa ak almimiya kon loole ñu ngi koy soñ ñëpp lu ci waay mën a def muy maanaam mu def ko donte nag lu ñu foofu lay yem waaye yooyu daal mooy yi nga xam ne moom mooy cosaan li waaye askar it nag lu ci waay man nga def ko waaye ñu bàyyi xel ni borom dafa waxoon ni ci Cheikh Ahmadul Moustapha ci déggoo gum ci dégg Cheikhul Khadim bis bi ku yàlla dogal nga ñëw fanaan si fi boo yewoo danga nga seet ci ba mel ni na la sa waajur jure woon waaye ci naka mooy nga dundale ko ci ni ko borom bëggee ci ni ko borom bëggee mooy jaamu yàlla gumat sëkk waaye moytu lépp loo xam ne bii day nuru ab safaan kon loolu mooy tax nit nit mën caa jariñu kon yi bis Seex Xaadim da ko doon ñaan suñu boroom may ko ko kon nit ci la doon ñaanee ni bis bi mooy bis bi ko gënal kon jàpp nañu gisuñ benn bis bu gën a kawe bis bii waaye la ci tawam bi def ak ak li nga xam ne moom la ko ci sant loolee day day day sëkk firnde waaye ba ñu leen ciy wutu di Serigne Cheikh Gaynde Fatma ak ñi ak ak ñi mu àndaloon kon loole day tegtale ni bis bi daal képp ku bëgg mucc képp ku bëgg a texe na ko na la fekk nga fanaan si dëkk bi waaye boo fi fanaansee nag nga dundale ko ni ko borom bëggee kon ñu ngi soon ñëpp di soñ ñëpp nag ci njàngum alxuraan mi ak njàngum xasida mi ak salaatu ala nabi waaye ak bernde yi lépp nañu def ko ngir yàlla waaye ca ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah ci turu fédération bi nga xam ne moo lëkkale mboolem section yi ci aju yëpp li tàmbalee ci section yi ci bitim réew waaye diaspora bi lu mel ne section Niger waaye section Gambie ak mboolem nag diaspora bi yëpp section yi ci Sénégal mboolem fa ab section mën nekk sëñ bi nee na ñu ngi lay soñ ci bis bi li nga xam ne noonu lañ ko fas yéene waajale fii ci kër gi incha allah bu nu xëyee njàng mi day continuer ba cinq ñu def fi benn panel waxtaan ci euh, diine ji fàttali konte ba timis nu bernde bu ñu demee ba minuit Serigne Moustapha président fédération bi génn ak mboolem section yépp waaye la jiitu loolu nag njàng mi na ko sëriñ Mourou Moussa daan defee noonu lañ koy fas yéenee defe mooy dañ koy amal fee ca jumaa ja ci biir jumaa ji yen doo faa jàng alxuraan ak xasida bañ julli tisbaar sunu jullee tisbaar ba noppi sëriñ bi ak njaboot gi àndandoo ak mboolem nag fédération bi yëpp ñu xat mu fa kaamil ba nañ ko baaxoo def loolu daal mooy woote bi lu mboolem fa ab section ma a nekk rawatina président section yëpp ñu soññ mbooloo mi teel a ñëw ngir liggéey bi ñu man koo defee na xam ne noonu lañ ko baaxoo defee wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatulahi maa ngi nuyu mbokki wilaya di leen ziyaare di ñaanal sëñ Ahmadou Maxtaar Mbàkke mu yàgg fi teer njaboot si Moustapha gépp may wax ci turu soxna Ndeye Fatma Mbàkke di soññi mbokki taalibe yi ñëpp Dakar Sénégal gépp di siyaare mbokki diaspora bi maa ngi leen di soññi di ñaan ñu taxaw ci nañ ci daan taxee bu baax baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ñoo ngi soññee màggalu daar xuddoos bi bi ñuy amal le 18 août si pàkk bii di daar xuddoos di fom euh, soññe bépp section nag section wilaya femme yëpp ñoo leen di soññe si màggal gi ñoo ngi ñoo ngi ñaan yàlla kenn ku ne nanga ñëw yendu si mbaa nga fanaan si bu ñu nee suba la màggal gi na section yëpp ñëw bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu kenn ku lim jum doo matal waaye soxna Ndeye Fatma nee na moo ngi so soññee section wilaya femme yëpp si màggal Daaru Xuddos bii ñuy wootee le 18 août si pàkk bi te sell bii di ñaan ñëpp yàlla ñëpp fekk ko si jàmm salaam te ñu teewlu ko wasalaam. mbokki jullit yi mbokki taalib yi ñu ngi leen di nuyu. di leen ziare bu baax di leen baalu àq ci at mu bees mi di leen baalu àq ñaan yàlla ñu boole nu jégal ñëpp jullit bokk jégal bokki jullit yëpp ñaan yàlla it ñu fekkewaat koy at ci kanam dañ ko baaxoo def ci waxtu yi ci barab bi ci ndigalul sëriñ taxa eh, mi jëwriñu sëriñ Tuubaa ñaan yàlla mu yàggal ko fi lool ak bokkam yépp ci kilifteefu sëriñ Ahmadou Maxtaar mi nga xam ne mooy jëwriñu Cheikh Moustapha <coughs> ak ñi mu seqal kër gi yépp ci buñ ci tuddee sëriñ Cheikh Madina ak sëriñ Cheikh liw mu doy sëkk ñu am mbégte bu baax ci kilifteefu sëriñ Moustapha mi nga xam ne mooy président actif bu fédération des regroupements religieux des disciples Cheikh Bamba ci ndigalul kilifaam di sëriñ Abdourahman ñu fas yéene soññentewaat soññewaat mbokki taalib ci màggal gi ñu dëgmal incha allah war a euh, euh, dix-huit août fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août. fii ci Touba dëppook fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru wolof bët set di ñaar fukki fan ci weeru tamxarit sëñ Moustapha wax ne mi ngi soññ bokk jullit yëpp di soññ bokki taali bi yëpp rawatina ñi mu seqal fédération bi ci composantam yëpp nag ci ñu ko seq ñépp ñanu ñene nañ ko waajal tàmbalee ko ci organisateurs yi dañ daan taxawe ci jànkate xaside yi jànkate alxuraan yi ci mbokk yi nga xam dañ daan ñëw di ànd ak ñun liggéey bi ci anam yëpp ñenn ñu ne fa ñu nekk nañu waajal bis bi ci gën gaa rafet ci aw waajin gën gaa tedd ci aw waajin nu mu gën a dëppoog ndigale sëriñ bi moo ci gën lu mu gën a sore ak ay tereem moo ci gën ñu xam ne bis la boo xam ne fédération bii di ko wootee amut bis bu ko gën a kawe képp koo xam ne nag jàpp nga ni sa liggéey ci fédération bi yaa ngi koy defal ngir yàlla di ko defal sëriñ Tuubaa ñu ngi lay woo ci bis boobu ceet nga fonk ko ni nga fonke rek euh, ndigali sëriñ bi ndax lenn la ci ndigali sëriñ bi loolu daal la sëñ waxoon nañ ko wootee xam naa kàddu yi xaw naa dëng waaye nag ni ko yéene woon a waxee euh, tële ci ndax fi ñu yëf yi toll ak ki joxe ndigal li fam ko toll waaye nañ xam ne luñ ci wax rek liñ ci bëgg a wax ci waxuñu ko moo ci raw moo moo ko moo ko ëpp kon daal ñu ci woo ñëpp di ñaan yàlla nag yaakaar jiñ ci am ci muy ak njëggal euh, liñ ci sabablu di ngërëm lépp yàlla boo leen defal na ko ci te yàgg koo taxawaat ay at ay at ci kanam ci dara ji Cheikh Moustapha jërë ngeen jëf ñi sant ñëpp di gërëm ñëpp mbokk yi bis baa ngi noonu muy bis bu am solo ñu di ko fàttali ñëpp muy doon incha allah alxamis ji nu jëm. di màggalu ko xisriina muharram le 18 waaye ba tey ci taxawaayu bis yooyu commission éducation culture mi ngi koy fàttali bu baax ci njàng mi ak na ko sëñ Cheikh Fall waxee waaye panel bi nga xam ne moom lañ ci war a amal naka noonu commission sociale bi tamit et développement amal nañ ci taxawaay yu am am solo incha allah ci samedi jii di ñëw le 13. danañ amal benn consultation gratuite fii ci Daarul Xuddus ci école français bi ci Bayti ñu ngi ko yëgal ñëpp di wax ne 8 heures lay commencé incha allah ba 16 heures ñu ngi ko yëgal ñëpp di wax képp koo xam ne rek yittewoo na ko mën naa ñëw ci bis boobu bi danañ fa def consultation bu ama am solo ci fànn yu wuute wuute wute waaye naka noonu bu ñëwee suba la màggal gi di àllarba incha allahu rabbi danañ amal benn don de sang ngir fàttaliku suñu mbokk yi nga xam ne ñoo tëdd ci barabu l'hôpital yi e, te soxlawoo loolu le kon ñu ngi koy fàttali ñëpp rawatina nag membre yi nga xam ne ñoo bokk ci fédération bi ñu gën a góorgóorlu ci bis yu am solo yooyu kon mbokk yi loolu moo doonoon woote bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.